ñëpp ñu dem ñakku ndax bu ñu ñakko danañu mën a aar sunu njaboot aar ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyandoo mën a aar ñëpp te danañu mën a aar sax sunu liggéey ndax coronavirus bi bu yàggee ci réew mi du baax ci mennum xëy ñoom ñi nga xam ne ñoo séq MEDES ci seen communiqué boobu ñoom nag daat nañuy rafetlu bu baax baax li nga xam ne maanaam mooy campagne de vaccination bi ni nga xam ne moom la commencé te nag ñoo ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ba pare di sàkku ci maanaam ñu ñëw adhéré ci campagne de vaccination bi ñaax askan wi ngir ñu ñàkko ndax ñoom jàpp nañ ne moo mën a saafara li nga xam génn mooy woppi coronavirus ji président Mbagnick Diop ci biir communiqué bi moom mi jiite entreprise du Sénégal daat nay wax ne li nga xam ne mooy coronavirus bi nemmeeku nañ ne maanaam faagaagal na mbooleem suñu entreprise yi faagaagal mbooleem suñu économie bi te nag jël mesure barrière yi dem ñàkku ji sensibiliser askan wi dara ëpp ko si solo yéen kaay gi de Le Quotidien moom tim xëy di ñu xibaara naan ñu coronavirus bi tax na ren ji 4 avril fête ñu ko doon defee ci Sénégal xumbute yi ak yu si aju ren ji bi moo bu fi 4 avril amee nañu ko doon amelee yéen a kaay gi di réew mi xëy séq waxtaan wu yaatu ak économiste bi di Moubarak Lo moom nag nee na coronavirus bi vague bu njëkk bi moo gën a faagaagal réew réewum Sénégal ak économie bi nekk ci àdduna bi waaye nag gis nañ ne ñaareelu vague bi daal maanaam tane na ci économie réewum Sénégal wax na ci lu jëm ci mill milliards yi ak nu ñu ko doxoleek solo si nga xam ne am na ko wax na tamit état bu Sénégal nan lay defee ay jéego bu jóg ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekkee waaye tamit daal nay wax ne état bu Sénégal jamono ji ma ngi suqaliku ak tourisme bi nga xam ne am na jafe-jafe la ñuy tekk ba maanaam moom daal di ko yëkkatiwaat loole lépp wax na ci ma ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien yéen a kaay gii di Walfadjri xëy di ñu xibaar naan ñu maître Abdoulaye Wade jóge na ci réew dem na ca Paris vol spécial moom la Abdoulaye Wade jël waaye na xel tey na xel yaa ngi jeexi jaaxa ci voyage bu Abdoulaye Wade boobu yéen a kaay gii di Les Échos nee na Abdoulaye Wade jet privé la jël benn xaritam émir moo ko ko daal di jox jox leen ma y a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ay xale yoo xam ne démb doon nañu leen atte ci tribunalum Dakar xale yooyu nag li ñu def xale yi nee nañu kenn ki nee na doomu Macky Macky Sall la kenn ki nee na doomu Idrissa Seck la xale yooyu dañoo demoon ci hôtel Lagon maanaam nag di fa jàbba jonge di noos ak gundaandaata yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na xale yooyu nag niki démb àtte nañu leen la ñu leen àtte maanaam escroquerie ak usurpation d'identité benn xale bi nga xam ne moo tudd Saliou Mbaye nee na mooy Amadou Sall doomu Macky Sall keneen ki nga xam ne moo tudd Lamine Seck moom nee na mooy doomu Idrissa Seck mi jiite conseil économique social environnemental ak seen yeneen xarit yoo xam ne ñoom lañ àndaloon ñoo demoon ca hôtel Lagon doon commandé ak doon fa noos ak doon fa yéen i gi nee na ñooñee nag teg nañu leen loxo niki démb la ñu leen doon atte la nga xam ne moom lañ fa jot a jaay ni ab xaalis bi ñu ko xayma toll na ci un million yu fegg juróomi téeméeri junni yéen i kaay gi nee na xaalis boobe nag xale yi bi ñu leen tegee loxo maanaam fayuñu ko ki ko fay nag mooy Ibrahima Sall Ibrahima Sall doomu Macky Sall moo wax waa pale ba ne leen nag kon ñun lañ doon mbubboo maanaam fay leen xaalis bi waa pale fay nañu xaalis boobe yéen i kaay gi du l'Observateur ak La Tribune ak L'As ak enquête xëy di ñu xibaar naan ñu assemblée nationale niki suba ci àjjuma ji soo moytuwulee danañu futti Ousmane Sonko la turbine ñun amuñu si benn xel ñaar ndax nag majorité bi Macky Sall la àndal te ñooñu xam ngeen ne lu ñu leen def law moom la ñuy def yéene kaa gi nee na ñu bari njort ñu ne Ousmane Sonko bu subaa bu ñu demee assemblée nationale bu ñu voté ba pare bu ñu wàññee xob yi ëpp daal la ñuy wax mooy dindi leen malaanu kiir ayu Ousmane Sonko journal bi de Le Quotidien nee na assemblée nationale jël nañu Ousmane Sonko jébbal nañ ko àttekat yi yéene kaay gi di critique nee na suba ci ajuma ji dana nekk ajuma joo xam ne dina tàng jër dina tàng jër dina saf sàpp dina wex xat yéene kaay gi nee na Adji Sarr mi nga xam ne moo tuumaal Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum siif ak wàllum menace de mort tey jii si alxames ji danañu ko daal di déglu juge d'instruction bi nga xam ne moo yor dossier bi moo koy déglu yéen kaay gi du l'observateur nee na Adji Sarr mbaadu lañu ko waajal ndax démb gisante na ak ñi nga xam ne ñooy ay avocat ma Adji Sarr gisante na ak ay avocat am waxtaan nañu yéen kaay gi de Les Échos nee na xuloo bu mag ni ki démb amoon na ca assemblée nationale ci bureau bu assemblée nationale diggante député Cheikh Bara Dolly Mbacké ak député Abdoulaye Makhtar Diop ndax Abdoulaye Makhtar Diop moo jël kàddu gi ko Cheikh Bara Dolly yéen am na lenn loo xam ne texte yi dañu koy tere te nag war ngeen koo bàyyi ndax li ñuy waxtaanee ci bureau assemblée nationale wërta senn waru leen a dem di ko wax ñi nga xam ne ñooy tas ko du xabaar yi ba muy daane la Cheikh Bara Dolly Mbacké jël kàddu gi na ko yow Abdoulaye Makhtar Diop amul lenn loo xam ne mën nga ko wax maanaam yow nekkoo référence ci kenn fii mënoo tëddee njaaxanaay ndax yow koo xamante ni ndékkee na ak Léopold Sédar koo xam ne añanoo na ak Abdou Diouf koo xam ne reeroon na ak Abdoulaye Wade jamono ji Macky Sall jox la ca tëddee njaaxaanaay yéene kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na nag mbir mi maanaam du yomb benn yoon ci juge d'instruction bi nga xam ne moom lañ jox dossier bi waaye nag jot nañu ne juge d'instruction bi yàgg naa dund ay pression yu mel nii yéene kaay gi ba tey ci xëlim ak Assane Samb nee na nag trouble à l'ordre public soo muy tuulee dina am ñi nga xam ne nag ñooy jege jegeñaale Ousmane Sonko dañoo war ànd ak akuk dal bàyyi yoon def liggéeyam naam mbir mi bëri na politique waaye nag jamonoy politique am na jamonoy bàyyi yoon def liggéeyam am na moom Assane wax ne Ousmane Sonko li koy noppal ci mbir mi maanaam yoon comme na nga xam ne moom la ko waxee woon yéenekaay gii di sunu lamb nee fukki weer ak benn ginaaw bi ñu arrêté lamb ji ngir woppi coronavirus ji journal bi nee na danañu ko ubbiwaat waaye nag bu ñu ko bee Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ñooy njëkk a bëree